réew mi quotidien dikkaat na ci débat yi nga xamante ne tàngoon na jip rawatina jokkalante kàddu gi diggante rawatina ay député yu sekk coalition Yewwi Askan Wi yéenekaay bi duñu xamal ni donte lu ñu doon soppar ni ci système de parenage bi jàll na ndax projet bi moom daal nañ koy adopté waaye teewul diggante Pastef ak Yewwi Askan Wi moom ku ci nekk la nga yekkul sa morom daanaka danga nga koo fàtte Les éco di ko ci dëggal nee na li xewoon kay ca assemblée nationale moom cin buy baax la amuloon rukk buy sedd ndaxte diggante député yi xamante ne ñoo bokk Yewwi Askan askan moom xaajaloo dëgg lañ fa daal di nemmeeku xaajaloo gi ci ay kàddu yéenekaay bis bi la jour di kat na ci di wax ni diggante député yu Pastef ak yu taxaw Sénégal moom démb gat sa gat sa dëgg kon la ñu doon jëfee ci assemblée nationale yéenekaay bi li mu ci jàngat mooy xeex boobu dafa mel ni seeni njiit muy Ousmane Sonko xalifa Khalifa ñoo ko daal di parrainé Guy Marius Sagna ay kàdduwam ci yéenekaay bi ba tey muy xam le ni lii yëpp day wane ni ab complot la bi nga xamante ne nguur gi daf ko bi Sidibé ki ñu jàpp ni mooy chef de l'opposition jamono ji di Ousmane Sonko Abba Mbaye daal di ko ci tontu nee na li taxaw di def yépp dañu koy assumer ba mu mot sëkk le quotidien le quotidien li mu ci jàngat mooy Yewwi askan wi ci boppam moo daal di lajj Walf quotidien li mu gis mooy weesu na lajj ndax lii li muy firndeel suñu naataango yi jàpp ni ab ku kaaw bi nga xamante ne njiitu réew mi defatina ko fexe ba xajale opposition parlementaire bi ci boppam xajaloo opposition bi moom l'observateur dafa jàpp ni démb moom dafa mel ni rek dañ ko ko daal di adopté ci biir assemblée nationale li xew ci biir assemblée nationale L'As Quotidien gis ni loolu dafay wane ni Pastef jamono ji moom cundum moo des ci xeex bi janoo nag ak ñëpp muy waa taxaw wallu rawatina ñi féete ci mouvance présidentielle moo tax député wàllu yi ak taxaw Sénégal ñoom dañu daal di voté li nga xamante ne moom mooy projet de loi yooyu ca jamono ji nga xamante ne moom dafa dumoyu woot bi li leen ci jaaxal sax mooy député yu wallu askan wi nga xamante ne dañu doon tàccu kii di Ismaïla Madior Fall quatorzième législature bi li mu def mooy wane ni bu ñu sukkandikoo ci Sud Quotidien ni assamble ci boppam dafa xaalal yoon bi lépp li nga xamante ne moom la nguur gi daal di indi moo xam lu jëm ci parrainage bi nga xamante ne dañu ko daal di wàññi jóge ci 0,8 pour cent tabbi ci 0,6 pour cent léegi sax dugal nañ ci li nga xamante ne moom moo jëm ci député ndax 8 pour cent mun nga leen am ci parrainage wala sax mairie ñi nga xamante ñoom ñooy président conseil départementaux yi ndax ñoom mën nga ci am ci 20 pour cent ngir mën a jàll ci parrainage bi leneen li jàll ci assemblée nationale démb mooy lu jëm ci wàllub xeex luubal alalub askan wi réew mi quotidien di ñu xamal ni kon léegi leer na parquet financier moo fiy wuutu CREI bi nga xamante ne juróon na fi coow dëgg ay at yuy wees CREI di cour de répression de l'enrichissement illicite enquête di ñu xamal ni njeextalu ab ëttu attekaay bi nga xamante ne daanaka ñi ko bañoon bëri nañu lool li bëri lool xëy na moo ko waral réew mi quotidien dellu siwaat ni député yu PDS yi démb dafa mel ni ñu doon dóor pooc ndax li ñu jàpp ni ndam la ngir seen candidat di Karim Meïssa Wade la tribune moom neneen la ko gisee ndax dafa jàpp ni Karim Wade ci boppam naka noone xalifa Sall génn ci mbalka bi ndax démb dafa mel ni assemblée nationale dañ leen a zappé li ko waral yéene kaay di média bi dafa jàpp ni ñaari candidat yooyu ba léegi seen mbir leeragul ngir ñu mën a bokk ci élection présidentielle 2024 moo tax ñu jàpp ni xel mën naa ñaaw ñuy samp sax lan la Macky Sall di waajal ci boppam ak li mu mënta waaj daal assemblée nationale moom noppi na ngir jàllale lépp li nga xamante ne nguur gi indi na ko rawatina li tukkee ci dialogue national bi noonee la ko Vox Populi daal di xam ne ci xëtam bu njëkk Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo ne fang ci xët bu njëkk l'observateur yéene kay groupe Futur Média bi di dikkaat na ci li nga xamante ne moo waral ñàkk déggoo ñaari kàngam yu parti APR bi muy ca ministère yi nga xamante ne jaar nañ ko ca impôt et domaine ak xeex bi ci biir gouvernement bi rawatina ci coowal njëguluwaas bi woon yor-yor dikkaat na ci li xewoon ci weerub juin bi wees ak manifestation yu tar ci ndakaaru ak yeneen gox ci biir réew mi cartographe Free Sénégal daa dina ciy def xayma mu mel ni lu ñu fësal ni bilan wute na lool ak li nga xamante ne moom la nguur gi wax ndax nee ñu ci diggante ñeenti fan yi nga xamante ne fitna gi taroon na lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ci Sénégal ñii moom lu ñu ñàkk bëri na muy diplomate sénégalais yi nga xamante ne ñoo nekkee ci biti ci ab affaire étranges ndax ñenn ci diplomate yooyu dañ leen def mise en demeure am na sax ñi nga xamante ne boo moytul dañu leen di dàq waaye tontu ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur mooy li xew moom mënuñu ko duppe mise en demeure wala sax ab yéexte ci wàllu pay ak lim ci mën ti doon coow lii mën naa weesu fii coow li xew ca clinique Medicos bu yëmbal sid doy na waar ñaari docteur di Souleymane Sarr ak Lamine Soumaré ñoom la sûreté urbaine daal di teg loxo li ko waral mooy dañu doon woote ni ay médecins généralistes lañu waaye moom Souleymane Sarr ci boppam feeñul benn yoon ci tableau bu ordre des médecins bu Sénégal moonte de jot naa liggéey en tant que médecin généraliste diggante 2008 ba 2010 ca hôpital Abass Ndao bu Ndakaaru Sadio Mané ca Arabie Saoudite la jëm Stade Quotidien di ñu yëgal ni doomu Bambali bi mujj na nangu fekki club bi di Al Nasr ca Arabie Saoudite record yéene kaay dëggal ko dem ba xam le ni kon Sadio Mané dina nekk ab natango ak Cristiano Ronaldo ndaxte ñoom ñoo a bokk équipe